Youssou Ndour jaxasoog lool ak ñii di fansam yi ku ci ne yor ab CD di ko yëkkati ci kaw way yëpp buñ ko tegee ñoo koy wayandoo ci ambiance bu xumb lool séance dédicace bi nag ñu def ko à l'américaine ñi nga xam ne ñoo nekk presse art ñoom ñoo ko amal gannaaw juróom-benn fan ba album bi génnee njaayum CD bi dem na ci ñaar fukk ak juróomi junni ci exemple. noonu préparoon def benn séance de dédicace donc ñu choisir stade Iba Mar euh, stade euh, Marius pour euh, pour def un quelque chose de différent donc nit ñi ñëw nañu kontaan nañu pour mën je pense que ne cadre la bu bien aujourd'hui ñu ngi ci mille CD vendus donc euh, voilà fii ak euh, euh, le 4 incha wala fii le 7 wala le 8 avant encore incha sunu perspective mooy vendre mille CD. album bi nag Youssou Ndour def ko ngir delloo njukkal senegal yi ak ñenn nit ñu màgg yi nekkoon fii ci réew mi Youssou Ndour jàpp ne li nu mel dina tax mu delloowaat njaayum CD fa mu nekkoon. man xam nga artiste su Prince Art la dama ne leen artiste la ni ngeen di def ak ñeneen ñi jaarale leen yoon boobu. foofu laa jaar moo tax ñu am initiative showcase bi mu wane aussi engouement bi nga xamee ni que xëy na manqué woon na ci sorti album te ñu recréé waat ko maa ngi leen di félicité waa Prince Art. fans wala artiste bu fa ñëwoon wane nañ tamit seen mbégte. tey Youssou ak taxawaayam ci musique sénégalaise taxawaayam ci musique africaine mu liggéey liggéey bu am solo album bi génn première jour moins de 24 heures mu placé wu première iTunes euh, mérite la. nit ñi di rang rang bu gudd ngir nag am dédicace kii di roi di mbalax loolu di firndeel nag ne sénégalais yi ñoo bëggal seen bopp album bu bees bi di Sénégal rekk Youssou Ndour jaxasoog lool ak ñii di fansam yi ku ci ne yor ab CD di ko yëkkati ci.